يسر المسير مغدره ليملا مسيري يسري ويسر الحسير مغدره ليملا مسيري mbokk jullit yi mbokk yi ñi nga di télévision di TV ñoo ngi fii Ndindi bu ñu leen Ndindi kër Serigne Fallou waye ñoo ngi fi keur Serigne Abdou Fatah keur Cheikh ahmadou Khadim mbake mom Serigne Abdou Fatah xana dañ koy bayyi mu baxé ñu ay cadeau ci bisub tay bi ak reuyay guddigi ak ki nga xamni motax yoonu mourid diko magal ginaaw ba diine islam yépp diko magal muy Cheikh mamadou Fadal mbake kon ñun ñëpp ñu maas diglu Serigne Khadim mbake mom Serigne Abdou Fatah mom Serigne fallu mom Khadim Rasoul. assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen waa madiana TV ñu ngi leen di nuyu di nuyu ñi ngeen andal ñep waye di nuyu ñi ngeen bokkal liggey bi door ak jigéen mag ak ndaw di leen sant bu baax di leen gërëm ci seen teway di sant yalla bu baax ci baax gi ñu baaxee ñu fekke woon daaw ñu dimbali ñu ren ji ñu fekke ko ñu koy ñaan mu dimbali ñu ba ñu de déwén di sant le Cheikh Modou Fadal ak Serigne Touba ci bisam bi tay tey ñaan ñu ñaanal ñu ñu yàgg ko def rek te yàgg ci daje daje ngërëmu Serigne bi lool lool loolu daal lañ doon ñaan di sant it bokk taalib yi ñu sëñ bi booleel ak xarit yi ak dëkkandoo yi yëpp dagg nañ seen yi te ñoom ñëpp ñëw fi te yàlla ak yonent bi sëñ Tuubaa rek tax ak Cheikh Modou Fadal mi defal bis bi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa bu amee ab laaj rek ñu mooy nga dimbali ñu rek ci jëm ji nga xam ne moom la ñuy fàttaliku tey eh, di Cheikh Mamadou Fadal ndax eh, dégg nañ sëñ Tuubaa ci Mafaateel Bichri ci bayitam yooyee nga xam ni suñ fàllu la ñuy junj dafa mel ni mel ni boo ñu ci mënee dimbali di yow ma rajab yaa faadilan fadalawul xalaaxu yaa man bi faari xanit imlaaxu am ni mu mel ni suñ tubaa suñ fàllu daa tàkkale suñ tubaa ak ñàkk noonu noonu ciy dimbalee rek ak kan mooy suñ fàllu Mbàkke xam naa la ci suñ tubaa jublu dëgg-dëgg de mënu ma koo xam ndax maa gën a tuuti ci taalibe suñ tubaa yi ci yoonu murid maanaam euh, Serigne Touba nag la euh, euh, lam lam bëgg a wax xawma ko waaye la sëñ Fallou bëgg bëgg a defal sëñ Touba it xawma ko waaye li nga xam te ne bi defal nañu ko ñun ci sëñ Fallou ñu defal ñu ko ñun ci suñ suñ jëmmi bopp moom sëñ Touba de loolu moom xam naa ca dara te yaakaar naa loolu sañ naa caa wax sëñ Fallou daal moom na na mu ko waxaloon boppam ci làmmiñam dégg ñëpp dégg nañu du ma doom ju bëgg a seex du ma bu bëgg a doon du ma doom taalib bu bëgg seex du ma doom ju bëgg a doon bàyyam boo nee sëñ Tuubaa rek maa ngi ci biir gëm ko bu wóor booliwu kook dara di ko liggéeyal ba am ngërëm ca wàll yam ko mën a yëpp sëñ sëñ Tuubaa fayee ko la mu ko fayee ko gis xam ne ku woyof a ngi nii yaatoo ngi nii ku ngi nii ba na sëñ Tuubaa fayee mu ko fayee gaa ñi dañuy wax ne bu jafe-jafe yi bare waaye bu màggal Kazu Rajab ñëwee rek xéwal yi daal di ubbi loolu nag man waxuma ko ñu bare ko wax ndax kum neex boo ko déggee ne li muy maamam a tax nga wax ko waaye dama ko dégg ci ay nit ñoo xamante ne bii sëñ Fallou seen maam waaye sëñ Fallou du seen maam la ma bëgg a wax mooy comme mat na leen maam seen maam la waaye du seen maam ndax jurul seen baay jurul seen yaay waaye ñoom dañu ko dund ba gis ko ba ba tax ñu sañ ko wax nag laa tax ñu sañ ko wax moo tax man mii nga xamante ne bi dama ko dund ma sañ ko wax xam naa ne daal ku woyofoon la ku yaatu woon la ku gëmoon sëñ Bàmba la mënoon a jaamu yàlla la ku amoon xam-xam la ku am ku am ku am diine la ku am lislaam la ku bëgg doomu aadama la ndax danaan wax jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi ndax mën nañ bëgg gis duñ la mën a gis gis ay rakk ngir ay rakkaay yu bari te fekk na bu la neexoon ñu gis la nga def lu bu du bu mu ñimiwu maa wax lu gën i rakkaa waaye lu jege ay rakkaa euh, euh, mu ndax Sëñ Tuubaa dafay wax ne sàmm suñuy wax sax moo gën jàng sang suñuy wax sam suñuy wax ba duñ wax jangal non neena mo mo mo gën jang alquran wa alkasib ya ikhwan afdalu min tilawati alquran quran lolu Sëñ Tuubaa ko wax ma yaakar ne nit ki dimbele doomu adama ci sa ci sa ñak waye dimbele doomu adama ci sa ci sa man-man dimbele doomu adama ci sa katan dimbele doomu adama ci sa lamiñ lolu muy liggeel yalla te suñ borom dimbali nugo ci ci liggeel yalla borom suñ borom dimbale ko mu wooteel sëñ Tuubaa bisam bii ci Tuubaa yi kon lu ci waaye am war nga ko war nga ko caa mën a sant donte sëñ Tuubaa moom màggal gi waaye fii ci Tuubaa sëñ Fallu ko fi woote waaye suñ borom dimbale ko yi Cheikh Mamadou Moustapha Fadil wooteel ko bis mu fayee mu fayee ko seex Mamadou Fadil woo Cheikh Mamadou Fadil wooteel na sëñ Tuubaa bis Cheikh moom Cheikh Mamadou wooteel ko bis boo xam te ne bi dañ ko ko fayee kenn ku ne xam na ne eh, damay bañ a dugg ci yenn yi waaye Cheikh Mamadou Fadal li ko sëñ Touba doyal defal doy na sëkk doy na sëkk am na woykat bu ni daal Cheikh Mamadou Fadal sëñ Touba doy na ko te lu mu amul tey ak ëllëg suur na ko te loolu mooy dëgg wér kenn Cheikh Mamadou Cheikh Abdou Fadal rek di wax ne ku bokk Cheikh Mamadou Fadal war ngay gën a góorgóorlu te yaatu te yaatal na daan di wax ne lépp lu ngeen gis nit di ko def ñu koy tudd tudd Cheikh du Fadal na na xam ne jëliwu ko Cheikh Mamadou Fadal te waajuram bu jigéen la ko jëlee waaye Cheikh Modou Fadal kenn du fa jëlee lu dul noonu laa biir ngay def yaatu tabe woyof lewet ndax loolu ay ay jikkoom ndax day gis lu mën a faj mag ngi dañuy wax ne boo bu la masaan njëkk a gis ci loo xam ne dala koy tere doo ko gis ndax warmaal gum la warmaal waaw kon loolu di koy di koy ji koy eh, borom jikko ju baax dëgg moo mën loolu nit yilif nit muy def lo xamanteni bi bokut ak lam wara def nga gis ko war ko ja mën wax waye nga bañal ko gàcce tax nga bañ ko ko wax ngir bañ mu gis la comme gis ja ko njëkk gis su ko defé nak bu ëllëgé nga doo ko waxtaan ak mom bu tege ci yoon señ touba dal fay na day ñaan xéew li bis bi euh suñ borom dimbali ñuy ba ñun ñëpp ñuy bokk ko ñi ñëw ak ñi am yéene ñëw mënu mënuñoo ñëw ñëpp suñ borom bo ñu defal dimbali bañ tege ci yoonu siraatal mustaqima liñu fi andi baye baye ñu fi ñu ci gorlu muy jaamu yalla ñu bañ a bokk ci taalibe Sëñ Tuubaa yi nga xam ne dañuy dugg ci seenum néeg jël seenum téléphone dëpp ci seen kaw saaga ku leen neex wala ŋàññ ku leen neex bu leen ci yàlla xiiree ñu tagg ku leen neex te ñoom duñ bala ñoo lijjanti baaxu kenn wala mbonu kenn dañuy xool seenu mbaax mu toll wala seenu mbon fan la toll bu fekkente ne bii am nga jotu di lijjanti baaxu baaxu keneen rek dafa fekk ne waroon ngaa lijjanti sa mbaax ba xam fan la toll booy lijjanti mbonu kenn it fa war ngaa lijjanti sa mbon fan la toll sa jullite war ngaa xam ba xam suñ borom nangu na ko wala déedéet sa bokk ci xeetu Muhammad nga nga lijjanti ba xam yonte bi sallallahu alayhi wasallam nangu na ko wala déedéet bokk sa taalibi nga xool ba xam Sëñ Tuubaa nangu na ko wala déedéet bu ko defee boobaa doo am jotu di lijjanti kenn ak jullitam wala ak kenn ci ak taalibeem wala kenn tarixa bu mu bokk kenn ku ne sañ nga nekk ci tarixa ba la doy nga bàyyi sa morom mu xool tarixa ba ko doy nekk ci tarixa nag tarixa bi bi ma nekk gën ci tarixa yi tarixa beneen baaxul saytaane mënut a weesu loolu mhm. da ngay gëm li nga gëm te bàyyi keneen mu gëm li nga gëm waaye li la doy doy li ma doy doy kenn sëñalu ko kenn li la doy na la doy nga bàyyi keneen la ko doy doy kenn ku nekk nekk ci la la doy waaye li ma doy moom ngeen war a bàyyi ngeen war a gë euh, moo leen war a doy te ngeen la leen doy ngeen wàcc ko fële loolu si kenn sañul ko kenn bu doon bu doon ndox mu raxasit sax nga yor ndox mu set jàppal sa ndoxum sa ndox mu set te bàyyi keneen mu yor ndoxum raxasitam ndox ndoxum raxasitam la ko yàlla la ko yàlla dimbalee te la am te kenn ku la am war na laa gënal la nga am foofu daal lañ fas yéene ñi ñaan Sëñ Tuubaa mboole ñu ci taalibe mi nga xam ne ñoo ko gën gëm te saa bu ñu ñu bokk ci nga xam ñoo gën a góorgóorlu ci ay ndigalam te gën moytu ay tarem te gën moytu it suñu digganteeg suñu borom waaye gën moytu suñu digganteeg suñu morom jërëjëf mbokk taalibe yi kon ñoo ko déggandoo kàddu yi nga bi nañu ko kon dañ koy ñaanal mu fi nañu ci ñu kenn nangul kenn ku nekk yor loolu mooy lañ suñ tubaa waxoon ci masaalikal jinaan fa kullu wirdin yuridal murida li xadratillaahi wala njayda siwaan intama ilal jiidaan aw intama li ahmada tiijaan aw li siwaahuma min al axtaa bis kullum ala sawaab xam kon dañuy tàllal loxo rek sëriñ bi ñaanal ñu amiin bar suñ tubaa Yeah